Merci beaucoup. Hmm. beaucoup nee euh, naa la à chaque fois am contentement euh, di di di. dialogue. di waxtaan ak yéen. Hmm. Euh, déjà bala ma commencé nag damay naan alhamdulilahi rabbil ah, bi may yàlla suñu borom bi bi samay parents joxe fobert <laughs> lépp si biir jàppale leen rek jotali gën leen di jotali xam ngeen lii mënta ne moom mën naa waxal boppam ah ah ko déglu euh, bi ma samay waajur joxe éducation bu baax euh, hmm. ba nga xam ne bu ma toogee si mbooloo dinaa xam bu baax nu may ko toppatoo mënoon nañ laa jàngal wax hmm. ci ay jërë ngeen jëf tamit ginnaaw bi bi ma leen nuyoo ba pare tey lii tey jàggoon eh, nañ ko wax a ah, mhm. ah, pour pour ku nekk mën a xam foofu féete mhm. mais da doo fekk ni waaw wàllum nguur dafa nekk loo xam ne surtout fii si Afrique gi ñu nekk ni mm-hmm. képp koo xam ne toog nga si bopp bi rek ah, da ngay naan yaa luume mm-hmm. da ngay jaay du doole doole mm-hmm. ah, di exige loo xam ne da nga li muy wequ daa metti ah, comme jaga njaay di daw pompier bu ne bëri yow yow yow yow yow yaa ko jàpp yow. ah. bu ko tontu dama la ko ñaan s'il te plaît bu ko tontu bu ko tontu loon doon wax rek. lépp loolu dem yow a ñàkk fayda de. fen lan demul laa la wax. moi je suis un président kii buy wax bu bu naree wax fii. Hmm. ñu suus fi maa ko wax. na wax ak bàyyi ngay tudd yow. ah ah. ah ñu baal ne suus sa morom. booy bànneexu bànneexu eh? sa morom na waxaat. na waxaat. na waxaat. Salama da lama na da lama na. Brasa za bi da to zo in da mun da ge sa ngeen da da go go. Comme que comme que lii ngeen far seen kanam yu ron yéen ñu laay waxaat. Fexe leen ba association am si koñ. Gi gi sa kii. Président kii. Da lama na lama na da lama na non non brasa za bi so so. Mim mim. Jële jële jële. jële kuramba suuf suuf paj jële paj jële paj jële suuf yéen a ñàkk fayda waaye góor jigéen nga mbali ma sa caay ni bu sam dox naa góor jigéen nga dem eh ma ne nga jaar ni dem yéen boo leen fi naan am association yàlla yi tàq ma jeex booy bi daal ma de ku la kan si ku li la caay ji moom seen fan ngeen dem euh fi xewoon jëm tëngal sa bët te tamit tëngal sa ku nekk mu dugal waaye nag lii day firnde li ngeen la waxoon si payi si commencement bi maanaam seen ñàkk kilifteef ak seen ñàkk yàlla di ko mais liñ def nag tolma la ak pour minimiser mais bu sob yàlla na seen xel dal bu baax baax baax ah amaa nag xamoo leen laa gëgee mooy kan mais dinaa leen xamal benn affaire te boo leen eggee ngeen déggee ko waa association mooy bis tey dinaa leen wan man la laa bëggee ay ay dox bu ñaaw wala ay wax yu négatif du ma tee dellu ginnaaw li may dund si réseaux sociaux moo gën a métti foofu moo gën a métti foofu que yéen que man li nga xam ne ma play def kon na seen xel dal bu baax a baax a baax tey laa gën a jàpp a association bi tey laa gën a taxaw si bu topp président bi te ñoom tey dañuy xam ne man li si ka lañ ko euh, xam nañ ni ñoo ngi ci weeru ko waaw ko dama lay jàppale rek. Mm, mm, mm, Zahra baax yow ñoo bokk ko. dëgg la dëgg la comme yow comme nga baax ne yow man ak ah, kon nag buur bi ah. léegi ñu gis ne jigéen ñu bari ah daaw ñu. sellal maanaam seen colin colin yiwul yiwul te ku ku wax weeru koor wax si. papa laccu laccum la wala laccu man xaw ma sa ban la franchement fatt nga ñu lii la mu da gaaw nag yow du gis nga ko waaw d'accord léegi léegi yow yow laccu mm. do do do dama bàyyi ma liggéey waaye yooyu da eggali mu gaaw waaw d'accord léegi léegi yow yow mm. bàyyi ma jàppale la baal la cu duñ jàppale ngir yàlla baal ñu coupé ah ah mira kana wa coupé yow boy saay saay yow sax yow man ngay tànnas man caga bu tol ni man nga ne man ngay tànnas gisagoo dara maa yow ba fépp foo monte dem bala ra ra ay ñu gis ay yéen ñi nga ni ne yéenay dox si wàllum tëj tëj teg teg waa neexum lu xaar wala. may ma tudd ma rappelé ok dë dë d' accord ah ñi nga xam ne yéen yéenay dox si wàllum tëj teg teg. tey mhm. gis ne weeru. weeru koor yi. ah rasul ba ba bàyyi ma kay sama question. mais soxna si dama bëgg lu gën a gaaw rek ndax ñu xam nga suñu liggéey taxawaay bu bëri bi arrangé wuñu ni ñi dañuy xaar moo tax suñu clients yi. mais dama laa demandé question boo xam boo xam naa laa pour pour poser question nga ne ma waaw kon nag da nga bàyyi léegi la. ah d' accord am problème léegi nag gaaw rek. ay liggéey yéen yéen ñi yëngu si wàllum ci te càq càq càq yi ah dañoo gis ne ah ah amut te. amul te am si weeru koor gi.

non fu mu nekkee soxna bi seet naa ba seet mais mënu ma la xaar quoi. waaw nañ baal ren.